Adji Sarr mile di toppee Ousmane Sonko du jëm ci viol ak menace de mort foofu la doon liggéey diggi démb nag mu doon jàkkaarloog àttekat bi ngir mbir yu ni mel moom Ndeye Khady Ndiaye nag ba muy tontu rek ñi nga xamante ni ñooy jël salon boobee di ko méngale ak ab euh, lieu de débauche maanaam mbir foo xam ne dañ fay defee yu bon moom Ndeye Khady nag ñëw na taxaw ca baar ba jàkkaarloog àttekat bi nag ci lu gudd lool mu ñëwaat ci procédure yi nga xam ne moom lu ubbee salon boobe di Sweet Beauté yi na nag ay début Euh, ci profession ma euh, ki nga xam ne am na ko ne recrutement yi nag def ko am ak ay rémunération et les de services yu muy offrir moom nag mu ngi xamal ne rek institut boobee mu ngi ko ubbi woon le 2 juillet 2018 euh, gannaaw ndimbalu ki nga xamante ni moo di jëkkëram gannaaw ba mu sibiree moom sax ba mu amalee ba mu tàggatoo ci benn formation jëm ci wàllu esthétique ak gagné li nga xam ne moo di expérience am jëm ci institut yu bëree bëri ci qualité d' moom nag muy cité en guise d' exemple rek benn célèbre institut de beauté bu ñu tuddee suite nes nee nag foofee mu ngi fa doon fay régulièrement ay impôts nee nag suivre na euh, procédure ba mu mat sëkk bu jëm ci ouverture salon dëppoo ak yoon ngir mën a ubbi salon boobee nga xam ne moo di suite beauté nee nag ca njëlbeenam moom dafa jëloon benn villa bu quatre chambres mu aménagé ko nag comme spa donc doon fa amale li nga xamante ni mooy fii rek ñoom seen gannaaw bu mu amee autorisation nag ngir ubbi benn page Facebook dénommé Spa Beauty Dakar loole la ko moom mi ne di Ndeye Khady Ndiaye di expliquer na nga xam ne noonu la def ba ubbi salon bi di Sweet Beauté moom nag muy woy ba tey di xam ne nag ne mosul recruter benn xale bu jigéen bu amul expérience maam sax góor mos naa liggéey foofu ca salon ba moom ci kaddu moom mi ne di Ndeye Khady Ndiaye nee kenn mu ngi tuddoon ci ña fa doon liggéey Babacar keneen tuddoon kile di noonu ay góor yoo xam ne liggéey nañ foofu ca salon nee nag kenn ci ñoom ñooñu la mu doon liggéey rek mooy pédicure manucure keneen ki doon def li nga xamante ni moo di massage foofu ci sud. ci salon boobu nag 2018 ba 2021 mosu ñuy am benn jafe-jafe mosu ñu am benn problème waaye mosul gis aussi benn problème ci benn xale bu jigéen mu daal di koy am loolu di kàddu moom mi di ndeexee ne nag daf doon exiger li nga xam ne mooy seen carte d'identité nag pour ñenn ñi dañ doon euh, def li nga xamante ni dañ ko doon boole ak euh, ñoom waaye nag seen âge daan na ci vingt six ans ba trent ans loolu mooy tranche d'âge bi nga xam ne moom la doon recruter ay ndawam boo ko juge bi acculé nag moom mi leen mu révélé ne euh, li nga xam ne moo di institut boobu proposé nañ ko ay type service yu bëri bokk na ci ay séance de doon na proposé ay type de service yu bëri maanaam liggéey yu bëri daan na fa am bokk na ci ay séance de massage yu ñu waxee tonifiant relaxant euh, californien pour ñi nga xam ne nag dañ ñi am bopp bi métti wala ay sportif ak ay séance de gommage nee nag yenn ci clients yi eh, dañ doon eh, tëdd ñeneen yi nag liñ doon ñu def loole foofa ca salon ba nee nag ay employé yam nag moom dañ doon sol ay tenue de travail yu nga xam ne nag couleur ya eh, verte la couleur yu verte la pour le gommage et blanc pour li nga xam ne moo di massage du corps su fekkee nag prix la rek nga xam ne moo daan am foofee nag ca Sweet Beauty ndey Khady Ndiaye nag mu ngi nga xamal ne séance de massage simple yi nga xam ne daan nañ ko def ñu ngi ko doon facturer vingt mille francs CFA bu dee massage à deux mains nag moom client bi dafa war a casquer cinquante mille francs deux francs CFA la war a fay ngir mu am massage boobee bu dee client nag ñoom ca salle d'accueil bi lañ leen di dalalee foofu nga xam ne nag dañ koo aménager moom ay fauteuils nag noonu aussi ak li nga xamante ni moo di règlement intérieur bi ak li di menu bi moom ci boppam moo daan euh, def dalal client yi bu ñu ñëwee foofee